mbokku téléspectateurs yi ñuy suivre sur la TMS TV euh, tey samedi 27 mars 2021 euh, ñu ngi fii en direct ci euh, cabinet médical Thierno lay Sow ci devanture bi pour vous faire vivre en direct l'arrivée du khalife général de la médecine traditionnel the king of the king El Hadji Thierno Moulay Sow mu ñëw nag euh, pour maanaam euh, consultation yi traitement patient yi nga xam ne nii ñu ngi koy xaar ci biir euh, ngeen gis oto bu xonq bi nii muy 4x4 rouge bi taal détresse yi ngeen gis aussi mu ànd ak ñi nga xam ne mooy les préposés à la sécurité ñoom Diop Moulé adjoint chef sécurité mais aussi Serigne ñoom tamit ñuy gunge le véhicule du grand marabout pour mu ñëw gaare fii ci buntu cabinet médical bi mand ceeg commentaire yi euh, suñu consoeur euh, soxna Ngoné Dia waa macha allah doyen di la remercier comme ni nga ko waxee rek macha allah tey ñu ngi samedi 27 mars comme ni muy demee ci saa su ne xalif général des Jinne mi ngi noonu di ñëw nekk ci 4x4 am bu rouge bi macha allah ñu ngi fii ci VDN 3 bi euh, Cambérène 1 en géej gi côté de terrain jamono macha allah comme ni ñu koy defee ci saa su ne sëriñ baa ngi noonu doog a si mu nekk ay patient yu bari yu bari bari bari bari bari tey kër gi moom macha allah dafa ala daw mi foo sànni mbàttu mu tak fu ne la ñuy jógee ci àddu bi di àdduna bi di ñëw ndax xam-xam bi ko yàlla jox ndax baatin bi ko yàlla jox macha allah kon tey nag samdi bi ñu bàyyi sëriñ bee ngi noonu di wàcc yegg si na nii ci buntu kër gi. macha allah sécurité bi daal di koy wër mu ànd ki nga xam ne ne mooy chauffeur am Yatma Moule macha allah ñu gis noonu Serigne baa ngi toog ci ci 4 x macha allah doyen Serigne bi yegsi na le xalif général des jinne le meilleur de sa génération macha allah mi ngi nii ñëwati na macha allah ci à chaque fois ni ñu koy waxee ah borom bëtu allahu Mouhamed bi les frères rouges qui détectent les mauvais esprits macha allah mu bëgg allahu jël léppam yàlla la macha allah léppam alxuraan la mi ngi noon daal di ñëw di saafonteeg ñi nga xam ne ne ñoom ñooy sécurité yi di wàcc wàcc dugg jàkkaarloog ñi nga xam ne ne ñooy patients yi xam ne dañoo jóge fu nekk ci àdduna bi ndax bi ko yàlla may ndax doole bi ko yàlla may macha allah te yaakaar naa kuy dooleel ci bu ne yàlla subhaana wa taala moo la dooleel ah, doyen Aziz sëriñ bi yegsi na. merci beaucoup Ngoné pour cette euh, introduction le marabout qui vient. Mhm. Euh, le véhicule du marabout qui vient de stationner devant mhm. euh, le cabinet médical pour les besoins, en tout cas des consultations d'usage. Et d'un moment à l'autre, il va descendre de son véhicule, mais tout le temps, on a vu le marabout brandir le signe d'Allahu pour dire que lui, euh, le guide serviteur, Allahu, c'est son compagnon. Il croit à Allahu et tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est grâce à Allahu. Et il ne cesse jamais de nous montrer ce signe pour rendre grâce au bon Dieu. ngoone defe naa ne loolu tamit muy la am solo wane ne moom lépp lu mu am lépp lu mu mën tey ci subaanawul taala moom la ko teg parce que moo ko mooy ki nga xam ne mooy doole mooy kattan te moom moo ko may li nga xam ne tey mu ngi koy jagleel doomu aadama ay ngóone waaw macha allah mooy doyen comme ni dooleel ba tax na alaaji Ceerno mu la saw léppam allah la foo ko te àdduna day jël signe bi nga xam ne ne mooy allah moom lay def ci saa su ne macha allah euh, Ceerno mu la saw mi ngi noonu yegg si na macha allah patient yaa ngi fii àdduna bi wër fu ne la ñuy jóg di ñëw di wax macha allah mi ngi noonu ki nga xam ne ne mooy sécurité bi di ko ubbil porte bi macha allah mu waaj di wàcc ci li nga xam ne mooy kat kaatam bu rouge bi waaj macha allah noonu waaw macha allah am lu muy jox ki nga xam ne ne moom mooy sécurité bi yaat ma ki nga xam ne moo faral di ànd ak moom macha allah Thierno Moule saw macha allah daa def orange am nag bu baax macha allah nii lay demee ci saa su ah suñu sëriñ moom sañ la de tey dafa mel ne yaramam tamit dafa tàng macha allah nii lay demee ci saa su ne suñu sëriñ ñii rek lay def di sañse ba mu baax def ba mu baax ba pare daal di jël nag bëgg na ki nga xam ne ne mooy allah yàlla subhaanahu wa taala muy def ay signam foo mën loo mënut a wax ci àdduna rek day def signe bi nga xam ne moom mooy signe Allah macha allah comme ni ma koy waxee ci saa su ne c'est le mara bien préparé sponsorisé par Allah macha allah mi ngi noonu di ñëw di dugg si si clinique bi waaw ànd ak sécurité yu yaan yi Thierno Moule Sow mi ngi noonu di ñëw macha allah ki ñu doon xaar ci suba ba tey mi ngi nii doo ko yegg si macha allah daal di ànd ak sécurité bu am doole macha allah comme ni ñu koy defee ci saa su ne mhm. patient yaa ngi jógee fu nekk ci àdduna bi di ñëw macha allah yegsi na macha allah di ko xamal patients yi macha allah ki ngeen doon xaar yegsi na ki tax ngeen bàyyi seen yitte ki baax tax ngeen bàyyi seen activité pour bëgg a ñëw def li nga xam ne mooy consultation ak ñi nga xam ne dañoo am ay rab ak ñi nga xam ne tamit ñeneen ñoo xam ne amuñu ay rab dañoo am seen soxla bopp ñoo xam ne dañ fiy ñëw chaque jour ci biir kër gi waaw di def li nga xam ne ne mooy ay consultation ñi nga xam ne tam fu ne dañuy jóge bëgg ci wàllum tukki macha allah ak ñi nga xam ne dañoo sëy lu yàgg bëgg am doom mënuñu am doom ñoom ñëpp tey yaakaar naa ne àllaaj Thierno Moule Seye dooy jëflanteeg ñoom ñi nga xam ne dañoo am ay blocage ci seen wàllu liggéey tamit baax na askan bi di xam ne ne Thierno Moule Sow rab ak jinne macha allah am nañu doole waaye day jëflanteeg ñeneen ci leneen ak ci baatin loo xam ne du rab ak jinne macha allah mais rab ak jinne lañ gën a xamee macha allah rab ak jinne moo nekk loo xam ne dafa bi macha allah ñooy rubbe bi rëy ñooy rubbe li nga xam ne na mooy àdduna bi yëpp waaye nag baatin baa ngi fii ak xam-xam bi ñi nga xam ne dañoo bëgg tukki ñi nga xam dañoo bëgg sëy ñi nga xam ne dañoo am ay blocage ñëpp Thierno Moule saw day jëflanteeg ñoom ñi nga xam ne dañoo nekk extérieur bëgg këyit bëgg li nga xam ne mooy séjour mu tëleen bëgg li nga xam ne mooy nationalité ñu defa des années et des années ñoo ñëpp alaaj Thierno Moule Sow yegsi na kon nag sama gars yi ki ñu doon xaar yegsi na les frères rouges ngi noonu de tu qui détecte tous les mauvais esprits sama waa ji borom kun fa yakun tubaari kàlla macha allah ah ki ñu doon xaar yegsi na doomu ajaratu Mariama Camara bi tubaari kàlla macha allah sëtu segalon bi yegsi na tubaari kàlla macha allah su njota kay taay sa maam ah la ca maam sëta koy jël waaye nag bu lëg lekkee alam na ko jërëm gërëmee coy waaye sa maam su njota kayta bu del si waatoon doo defaraa sa toogaay ku lu tengalaak yoro tengalaak nii ma tengalaay sa maam tubaari kàlla macha allah les frères rouges ñi nga doon fekkoo leen fi ñi nga doon fekkoo leen fi ci xam-xam ñi nga doon ci baatin fekkoo leen fi macha allah ba tax na fu ne la nit di jóge ci àdduna bi di ñëw ndax li nga xam ne ne yàlla moo la ko defal macha allah fu ne la nit ñi di jógee ci àdduna bi di ñëw ñoo ngi nii macha allah àdduna bi yëpp a ngi taxaw macha allah di la xaar doyen ñiy jóge ay Europe ñiy jóge ay itali fu nekk. ci àdduna bi bañ na ko fu dina daanoo sax ci ci monde entier bi du ñu xalaat kenn ku dul yow kon nag jaaraamaa Thierno Moule Sow jaaraamaa la solution jaaraamaa borom kun fa yakun jaaraamaa ki nga xam ne Allah la doyloo mooy le mara bien préparé sponsorisé par Allah doyen. merci beaucoup Ngoné pour ces commentaires wolof donc mbooloo mi comme ni nga ko gisee le marabout yegg si na ki ngeen doon xaar ki nga xam ne nii gannaaw yàlla ak yonent da ngeen am yaakaar ci moom ci tiis yi ngeen xam ne nii moom ngeen jàkkoonteel. alors gis ngeen souvent vidéo yi reportage yi ñu ciy def muy ay kéemtaan yoo xam ne ni sëñ bi mu ngi koy def surtout nag vite fait bi nga xam ne nii fan yi moom mu ngi lëmbee jamono vite fait bi nga xam ne nii tey maanaam defe naa ne tey mooy la solution rapide et bien fait vite fait bi nga xam ne nii sëriñ bi dafa dem ba indi vite fait boo xam ne nii am na boo xam ne nii dañ koy maanaam usage externe dañ koy sangoo di ko diwoo ak vite fait boo xam ne ni dañ koy naan ndax keroog gis ngeen sëriñ bi ci reportage te defe naa ne loolu dina ci gën a ñëwaat ndax gis nañ fi mu nii góor ñu bari ñu mel ni man dañuy am ay méttitu biir ñu naan fa mu ko lekkee ak kan moo ko ko jox gis ngeen xew yi nit ñi buñ xasee ba dem dañuy lekk ci mbedd yi ñay togg xew yi macha allah duñ leen xam ñañuy bokkal duñ leen xam fu ne nit di fa jàmbat ay biir yu métti ñu bari ñu ngi sàngoo suuf lan moo leen ko yóbbee lu ñu lekk mu nekk seen biir moo tax seen bi ne ah loolu nag war naa cee jóg war naa jóg seet li nga xam ne ni tey maanaam mooy saafara jàngaro jooju mu indi vite bi nga xam ne nii da nga koy naan bu soobee yàlla lépp lu nekk ci sa biir daf koy dindi ba mu set soo koy naan bu la neexee nga lekk bul am ñaari xel bul am ñetti xel xamal ne jàmm rek moo lay dal defe naa loolu muy bokk ci kéemtaan yi nga xam ne encore sëriñ bi def na ko sëriñ bi ñu ngi lay nuyu encore di la ziar ci samedi bi euh, mais question bi ma lay laaj rek ñu ngi jëm nag incha allahu rabi ci weeru ramadan shawru ramadan di la laaj nag maanaam weeru ramadan gis nañ ba xeetu baax paax yi ngay def maanaam di ko jagleel doomu adama yi muy ay ndog yoo xam da nga koy séddale ñu ciy xéwloo mais surtout dañ buggoon nga indi ñu ay leeral rek ci sa programme maanaam consultation yi ndax heure bi dina changé wala parce que ñu bari dañu wax ne sëñ mi nag wax dëggal weeru koor dafa war a noppal nag parce que travailleur bu liggéeyee ba benn moment nag dafa war a am maanaam ñu may ko nag au moins mu dallu parce que nag liggéey ci kër gi liggéey ci bureau bi ba sa oto da nga fay liggéey donc loolu lañ buggoon sëriñ bi nga jox ñu ci ay leer. macha allah alhamdulilah rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam. ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm. di nuyu waa TMS TV macha allah di la nuyu doyen. merci beaucoup merci di nuyu Soxna Ngone Dia. merci macha allah di nuyu soma secrétaire yi. Mhm. Euh, chef de secrétaire bi Yaat Mamoule ak Diop macha allah euh, adjoint secrétaire. Mhm. adjoint bi ak euh, Serigne macha allah ak Amar. di sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonente bi di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu seetaan ci TMS TV. di kontaan bu baax a baax macha allah ci question bi nga ma posé. Mm-hmm. xam ngeen ne nag weeru koor gaa ngi jub jub mm-hmm. ñoo ngi ciy jub si macha allah xam naa ne bientôt quelques jours kese la. macha allah ñoo koy waajal comme d'habitude rek. macha allah ndogu yi moom dañu koy préparer bu baax a baax macha allah xam naa ne dinañ gën a def émission gën a yaatal naka lañ koy doxee ak programme bi ci weeru koor gi mais ñoo ngi koy waajal daal macha allah ñoo ngi waajal weeru koor gi bu baax di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi mhm. di kontaan bu baax a baax ci question yi am na solo mhm. macha allah xam naa dinañ ñëwaat ci mhm. mbirum weeru koor gi waaye nag liñ daan def dinañ ko def incha allah ay ndogu ah. euh, a ko déggandoor maanaam dara du leen échappé ci programme mu marabu ci ay activité am de toute la façon bi lépp loo xam ne des na ko rek ci façon bi ak nam koy defee incha allah di ngeen ko am comme information. Mm-hmm. Ngone waaw defe naa loolu leer na macha allah loolu leer na nañu mm-hmm. te Alaaji Thierno Moule Sow bu ne moom dina préparer ay ndogu dina def ay ndogu yaakaar naa ne loolu Euh, nit ñi war nañ ko mën a gëm ndax macha allah chaque weeru koor fii la daan teg ci buntu kër gi macha allah di joxe ay suukaru koor di joxe lu ne di dimbali jaamu yàlla yi macha allah comme ni ñu koy defee ku nit di ñëw sa kër nga di ko jox lekk di ko jox naan jox ko muy sangu jox ko muy def lépp yaakaar naa ne nag weer boo xam ne yàlla moo ko boppam macha allah muy weeru koor macha allah kon yaakaar naa ne alaaji Cerno mu la saw bu ñu yegsee foofu macha allah dina gën a gën a gën a wane boppam ndax macha allah daan def di togg di yóbbu ci jàkka yi di jël ay enveloppe di ko jox nit ñi macha allah allah koñ ne bu ñu demee ba jub weeru koor macha allah yaakaar nañ nañu alaaji mu la saw dina ci def euh, taxawaay bu rëy macha allah comme ni mu koy defee ci saa sune ne mi ngi noonu sëriñ bi tamit yegg si na mi ngi nii yéeg na ci kaw yéeg na ci escalier yi di waaj dem ci li xam ne ne macha allah mooy cabinet mm-hmm. waaw comme ni mu koy demee defee ci saa su macha allah tey sëriñ bi macha allah ñu xam ko ci sañse mu gën a. waaw tey tey fii la génn de waaw tey <laughs> temps yëpp gis nañ ko ci ay jàllaabe yoo xam ne macha allah mhm. tey nag mu daal di fël mhm. def bu baax nii la koy defee saa su ne Thierno Moule Sow mi ngi noonu macha allah borom kun fa yakkun ni ma koy waxee borom bëtu allahu muhammad bi macha allah suñu waa ji borom vite fait borom t-shirt action réaction yi t-shirt yi nga xam ne dafa mucc ayib t-shirt yi nga xam ne day détecté jënne di détecté dëmm sorcier bàyyu fi dara macha allah borom bag yi bag yi nga xam ne ne macha allah moo lëmbee adduna bi foo tourné moom la ñuy waxtaanee bàgg yoo xam ne na macha allah doyen ah moom la dëkk bi yëpp di ay bàgg yoo xam ne ne yu doy waar yoo xam ne ne moom la alaaji mu la saw di di wàcce ah mu ngi nii doy na waar macha allah toog na ci fauteuil royal macha allah dugg si na ci cabinet voilà waajal li nga xam ne mooy consultation yi. ok voilà donc euh, chers téléspectateurs qui nous suivez sur la de euh, TMS TV vous avez fini de vivre en direct l'arrivée du marabout depuis euh, l'entrée euh, en passant en tout cas pour les salutations d'usage qu'il a l'habitude euh, d'adresser aux patients mais aussi les messages qu'il a l'habitude d'adresser aux patients. On l'a accompagné sous l'œil vigilant de nos caméramans mbay mais aussi le moment de lui permettre de pouvoir s'installer, confortablement sur la siège royale à l'image des grands rois de ce monde. Voilà Thierno Moulay Sow avec son signe d'Allahu qui ne se sépare jamais de ce signe parce que je le dis souvent, lui, il rend toujours grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, s'il est à ce niveau de responsabilité, s'il est à ce niveau de pouvoir, c'est parce qu'il a l'accompagnement, l'assistance, mais surtout la bénédiction du bon Dieu Allah Ngone. waaw macha allah comme ni ñu koy waxee bañ na ko ba jinne bu ñu koy wax naan ko ay Thierno Moule da nga am doole dangaa am doole danaan le carrément lépp yàlla la mooy nit ki boo jëlee ni nga xam ne ne mooy yàlla nga delloo ko ci sa bopp yaakaar naa ne yàlla daal lay delloo li nga xam ne ne yow moom nga moom macha allah ba tax na fu ne la nit di jógee ci àdduna bi di ñëw macha allah Thierno saw Sow Soundiata Keita ma amoon question bu ma la bëggoon laaj parce que damay gis à chaque fois patients yi di ñëw fii ci biir kër gi am na ñoo xam ne dama leen di gis damay suivre dañuy ñëw daanu ñi nga xam dañuy ñëw garab affaire u ñoo xam ne dangay ngay jëflanteeg ñoom dañuy ñëw dugg génn ma xool suivre ndax man tamit damay jàngat ma gis ne ñii kon ñëw nañ fi daanuñu jëluñu ay garab ay vitfee yoo xam ne day faj ay rab ak jinne ma bëgg a xam ndax mu Moule Sow am na beneen liggéey loo xam ne da koy def di lu jëm ci wàllum sëriñ dimbali ay nit loo xam ne bokkul ak rab wul ak jinne waaw macha allah jërëjëf soxna Ngoone ja macha allah ñoo ngi lay nuyu bu baax ak sa grand boubou bu baax macha allah waaw ndeysaan jërëjëf jërëjëf ñu ngi ci yow doyen macha allah ah, waaw ndeysaan est maa ngi ñaanal artistes yëpp artistes yi seen journée mondiale ni ko euh, soxna Ngoone wax ñu ngi leen di ñaanal bu baax yàlla defal leen jàmm ak xéwal yàlla gën leen sàmm aar leen yokk seen xéwal bu baax a baax macha allah ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen jiitu ñu nekkoon ci ñeen ci yéen yàlla yërëm leen xaare leen aljanna macha allah kon nag ñoo ngi nuyu Sénégal yëpp macha allah di leen ñaanal jàmm ak waaw di kontaan bu baax a baax soxna Ngoné question bi nga ma laaj c'est important euh, bëri nañu fii ñëw di ñaan di ñaanlu si ñii di faju si xam nga ne macha allah euh, feebar yi bëri dañu koy faj jàngoro yi bëri du wàllu rab rek du wàllu jinne du wàllu seytaane kese. am na ay feebar yu bëri yi nga xamante ne day am ci yaramu nit euh, nit ki du xam bu demee hôpital ñu xool du ñu gis dara bu ko defee bu ñëwee fii bu ñu xoolee ñu xam carrément problème bi lii la ci kattanu yàlla ñu defal ko ay ñaan du feebaru rab rek la ñuy faj aussi rab yi tamit ñaari façon la am na ñi nga xamante ne dañuy daanu suñu daanoo ñu génnee jinne di wàññi kii benn jinne ñaari jinne ñett jinne ba gis ngeen trente jinne génne nañ ko fi ci kenn ki nekkoon juguleen soomoon am na ñi nga xamante aussi duñu daanu waaye ñooñu ñi nga xamante ne du ñu daanu dañu leen di faj ndax nag ni leen di fajee mooy lan euh, suñu garab yi dañ ci def ay mbir yi nga xam ak ñaan euh, ba bu nit ki utiliser garab yi bu dee dafa am jinne jinne bi day génn su génnee day ñëw ba ci kër gi fii présenté wu ci diw laa nekkoon ci diw laa jóge ñëw parce que garab yi daf lay topp boo utiliser garab yi sama jinne yi dañ lay suivre moo tax lépp lu génn ci yow day ñëw ba egg fii parce que du ñëpp ñooy daanu parfois dangay jox nit euh, nit ki day ñëw fii ne man de euh, dama yaakaaroon su ma ñëwee dinaa daanu du ñëpp ñooy daanu day am ñi nga xamante ne spécial yàlla moo dogal seen jinne yi dañuy dañuy dañ leen di daaneel ñenn ñi tamit seen jinne yi duñu leen daaneel mais ñi nga xamante ne seen jinne yi duñu leen dañu am garab yi ñuy defar fii bu ñu la ko joxee boo ko utilisé mbooleem jinne bu nekk ci yow wala dëmm maanaam garab bi da koy orienté indi ko ba fii maanaam bu ko utilisé rek dañ koy génnee ci yow day ñëw ba fii présenté wu exemple mun na ne ah man kat ci doyen laa ne woon nangam nangam day expliquer carrément comme comme rab bee rab bi di daanu nu muy expliquer jine bi noonu lay expliquer ci doyen laa nekkoon macha allah maa ko doon def nii maa ko doon yàqal. Mm-hmm. day ñëw rab bi wax la rab bi day ñëw présenté wu. du dañuy wax ak jinne yi kese bu ñu daanoo maanaam bu nekkee nit ki daanu na même bu nit ki daanuwul sax dañuy wax ak jinne yi jinne yi nu ne la ñuy wax ñoom parfois dañuy ñëw ak seen jëmm ka boobaa nag seen jëmm la ñuy ñëwee man kat ci diw laa nekkoon ba nga ko joxee vite bi mu sangu ko wala ba mu suuroo ci laa génnee ci moom nag ñëw dama ñëw pour nga tuubal ma dama ñëw pour jébbalu loolu tamit foog mu leer ci noppu nit ñi du ñëpp ñooy daanu nag comprendre nga tamit feebar yi bëri dinañ koy faj aussi dañuy def ay ñaan pour wàllu wërsëg ubbeeku pour wàllu yokkute pour wàllu business aussi euh, yaa xam da ngay def business yaa xam looy def maanaam du wàllu faj rab rek macha allah waaye nag xam nga nit ñi rab la ñu xamee ak jinne te hmm? tamit dafa am benn taximan bi ma duggoon mun na ma yow dafa laa xàmmee si kenn mu la saw. waaw ko waaw mun na ma gis naa la ngay faju. après nga daal di liggéey. waaw ko waaw dama doon faju mais comme que man artiste comédien laa te dama daan def. dama daan def euh, ay affaire man macha allah bi ma fajoo ba pare kon man dama jébbalu ci moom sama sëriñ la macha allah parce que nit bu la dimbalee danga koy wax léegi moo tax ma dellusiwaat di ñëw di liggéey moom mu ne ma ah moom de sama benn jarbaat de pourtant moo ko ñaanal mu am visa ndax yaayam ak papaam ñu ngi États-Unis mais dugal nañ tànk dugal loxo ba sonn mu tëj mais kii nga xam ne mooy Thierno Moule Sow lool moo tax ma xam ne yàlla may ko may ko ma bëgg a xam tamit ci ñaanu visa yooyu tamit nga bëggoon ñu indil ñu ci ay leeral dañuy ñaan si loolu tamit nit ku bëgg a tukki sa tukki jafe am na ñi nga xamante ne seen papa ngi bitim réew comme ni nga ko waxee kooku seen papa ngi bitim réew ñee ngi Amérique France fu ne dañuy jéem a dugalal seen njaboot yi pour ñu ñëw mais day jafe. mais bu dee dafa am lu la gàllankoor soit dañoo téye sa yoon bi wala ñu daal lay sëf wala ñu dëj la wala rab téye ko yooyu yëpp boo ñëwee bu ñu xoolee ba xam lan la dinañ fexe ñu dindi loolu su ko defee yow ñu ñaanal la pour nga mun a yoon bi mën a yomb nga mën a am visa nga dem loolu bari na du benn yoon du ñaari yoon sama ni sama tur nit demee na fi demee na fi ay yoon yoon am na ñu bari ñu amee sama tur visa tamit am na ñoo xam ne dañuy ñëw ba fii ma defal leen ñaan ñu dem ñaani yàlla dimbali leen ñu am loolu moom du benn yoon aussi ñi ñi nga xamante ne aussi ñoo ngi bitim réew ñi problème green card problème séjour aussi ñu yónnee fii ñu jëflante ak ñoom ba ñu am këyit maanaam li may ñaan dafa bari xam nga nag xam-xam boo ko yoree. dëgg euh, doo yem ci benn mbir kese mm-hmm. rab rek wala jinne kese. da nga koy tasaare. yu bëri dañ ciy liggéey mais xëy na rab ak jinne moo gën a fës. ndax moo gën a sonal nit ñi aussi loolu la ñuy gën a médiatiser moo mm-hmm. tax. mais yu bëri dañu koy ñaanal nit ñi di si jàppale nit ñi bu baax a baax macha allah yokkute ubbeeku. Mm-hmm. nga am sa liggéey sa kër nga bëgg sa kër dox jafe-jafe ngóora euh, yokkute jafe-jafe yenn feebar yi sew sewaan yeeg yooyu am na yu bëri nga xamante ne dañ koy faj macha allah di si jàppale nit ñi bu baax te ñi ñaa ngi ciy gis seen bopp bu baax xam nga nag rab moom moo ëpp bës moo ëpp bàyyi rek <laughs> mais nag du kese la ñuy ñaan du du loolu kese am na yeneen ñaan nit ki nga xamante ne da nga am euh, wala ngay jongante wala ngay xëccoo wala nga bëgg nguur wala nga bëgg dara affaire yooyu et cetera et yu bëri dañ koy def hmm. dañ ciy def ay duwaaw te yàlla mu ñuy jàppale ñi ñaa ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax macha allah merci. merci. ci saa su ne comme tamit lu ñu jot a gis rek macha allah mu leer ci nga xam ne ñooy seetaan Thierno Moule saw ñu mën a xam ne ne Thierno Moule Sow kun fa yakun ndax bu ñu nee kun rek macha allah yaakaar naa ne lépp la ñu fàttaliku ne Thierno Moule Sow tamit mi ngi ci wàllum visa yi mi ngi ci wàllum blocage ñi di jaay te duñu du ñu xam seen xaalis fu muy dem dem ak seen loxo di bënn lu ñu am mu tasaaroo macha allah kon yaakaar naa ne leer na naañ xam naa ne moom sëñ bi dinañ ci am yeneen yoon yoo xam ne dañuy toog gën a waxtaan bu baax a baax baax ci wàllum liggéey bi doyen salaamaaleykum merci beaucoup beaucoup. Donc, euh, merci Ngoné. Maintenant, nous allons clôturer cette première partie du reportage. Reportage qui consiste quand même à installer le marabout sur la chaise royale, mais aussi di gërëm tamit sëriñ bi une fois de plus. parce que nag li may wax ne moom kilifa boo ànd moom il faut que ngay roy ci moom te moom mii daf koy wax daf koy répéter tout le temps di ko wax employé di ko wax agent yi di ko wax bépp boobu koo xam ne da danga nekk dans son entourage ne man kuy ànd ak man da ngay bëgg sa bopp kuy ànd ak man da ngay correct da ngay dëggu tamit. te defe naa ne loolu mu ngi koy firnde bés bu set ci moom d'abord ni muy présenter woo ba nga xam ne nii keroog dafa ñëw oo équipe bi vraiment yëkkati ay tissus yu bakkane jëlal ma fii sëriñ moo fi génn génnal ma fii sëriñ moo fi génn alors donc mooy wax rek na sëriñ ñu ngi lay gërëm une fois de plus fii nag yow yaa fi génn kon nag defe naa loolu war na leer waaw parce que yow yaa ne képp kuy ànd ak man di liggéey ak man dama bëgg ngay correct comme ni may correcté kon nag loolu da doon attirer attention public bi di attirer ñëpp donc ñu ngi leen di jox rendez-vous pour des reportages au cours de la journée après avoir installé le marabout à tout à